comme ni ma ko waxee rek ci témoignage Soleil euh, paa bi sama papa mm-hmm. sama papa te daf ma ko daf ma ko wan ci ci fànn yu bare mm-hmm. su ma ko président daal bi permettre rek li mu mujj defante ak man 31 mm-hmm. décembre laa mujj def conseil d'administration Ablaye bi mën na ko seede fekk na santé bi sonn ma jékki-jékki suñu ñëw après euh, mu gunge ko ne ko man daal kontaan parce que sa sa co ni ngay sa yaram ni nga toll ak instant bi am na ku la ngay mu ma dama ñëw benn pour ñaanal la sama anniversaire dama ma jëndal ñetti mbubb comme ma sol benn bi ma xool ko mu gunge ko mu dem ba ci mu la extraordinaire la woon ci engagement waaw sama xamante woon na ak sama famille mais bi ñu gënee saaxoonte li mu gënoon yéem ci moom mooy at mu am ak mag bi mu toll mu engagé woon ci président daal Ablaye fekk na ko yàggul dafa ñëw ni ma damay dem Mboumba ma ne ko papa looy wutu Mboumba mu ne ma damay réunir chef de village yi yooyu alentour parce que daal PSE bi foog ñu wax si ma ne ko papa président nee na teggi na la Yamé, monument matisal pour tous des engagements, pour tous les sacrifices. Donc, pour le président, euh, même pour nous beaucoup le Guinée, ñëpp la ñuy war jaal. mais jaal hein, pour ku mët a jaal. man de euh, sama engagement dama ko doon xeeb sax ci ni mu gisee parce que toog naa ko ba jaa ma ne ko man de su ma demoon ba am sa at ak sa ñak wér bi ah li nga ñeme man ñëmé wu ba légui di doon bint mooy toog contribution mu bind ah di wax donc daal euh, man teel naa ñàkk a papa mais gisoon naa papa ci moom waaw te depuis li muy mujj wax rek président mooy doomam bi Abdoulaye man dama ko dama ko ñee parce que juróom-benn depuis juróom-benn at mu bàyyi lépp lépp di wommat papa di tedd li mu mën yomb nekkal xibaar yi guddi ak man dama ko ci law honnêtement amatul benn activité papa papaam rek donc loolu daal jaroon salué te dama ne ko wax te bon euh, paa bi dénk nañu ko man suñu bopp ñun ñëpp yow lañu dinaa essayer nekk à hauteur euh, de vœu boobu euh, loolu ma kii te ñu rafetol parce que man du woon sama PCA sama papa la